ñu daloo ko ndax Maroc jamono jii ñi doon candidat yépp waa CAF jàpp nañu ne réewu Maroc moo leen gën a noppi ngir daloo Coupe d'Afrique boobee te D7 de football nee na boo moytuwul dinañu ko jox waa Maroc loolee nag officiel agul waaye lu ñu njortu la bu ñu yeggee ci le 10 février 2023 ci la ñu koy siiwal wax ban réew mooy daloo Coupe d'Afrique 2025 waaye D7 de football nee na bu dara soppeekuwul réewu Maroc la ñu koy jox. ñu jugee ci waa CAF jël doomu Tunisie bii di Mohamed Aguerd moom nag ma ngay football ca championnat bu Suisse. club bu ñuy wax FC Lucerne foofu la doomu Tunisie bi di football ab latéral droite la bu ñu sukkandikoo ci Gazzetta dello Sport waa Inter ñoo ngi koy bàyyi xel Inter li ñu bëgg moo di su fekkee Dumfries jógee na fa ñu jëli ko yóbbu ko foofee mu doxal gone gi nag Nottingham Forest moo ko moom da ko able ca Suisse jamono jii ma ngay doxal ca championnat boobee xibaar boobu Gazzetta dello Sport moo ko xamle. ñu jugee ci waa Inter ak seeni bëgg-bëgg jël doomu Brésil bii di Gerson moom nag ca Flamengo la nekkoon jógee fa dem ca Marseille waaye club boobee mu jógee woon ñëw ca Marseille. conseil ba léegi ñoo ngi koy bëgg waaye ni ñuy doxee nag yéex na lool bu ñu sukkandikoo ci esport point sn club bi nekk ca Espagne di FC Séville dañu ko bëgg te ñoom noppi nañu ngir def ca dix-huit millions d'euros mu jugee ca Marseille dem ca Liga Santander ba jàppale Jorge Sampaoli ci fàttali Sampaoli moo ko indi foofee jamono ji muy tàggat Marseille jamono ji lim bëgg moo di waa Séville jëlee ko ca Marseille yóbbu ko ca Liga Santander ba sport.sn nee na dix-huit millions d'euros yi nga xam ne waa Séville noppi nañu ngir def ko ci suñu ko ci defee waa Marseille dinañu bàyyi gone gi mu dem ca sifi doxal xibaar boobu esport point sn moo xam xamle ñu jugee ci Zerzone dem ca waa Real de Madrid fekk fa doomu Croatie bi di Luka Modric kii wax ci moom nag moo di Carlo Ancelotti mi koy tàggat ca club boobee nee na Modric nag du màggat du dee immortel la loolu la Carlo Ancelotti xamle nee na li ñu bëgg ñun waa club bi moo di mu des fi doxal ak ñun ndax jàpp nañu ne moom mii di Luka Modric fii ci Real de Madrid lay jëlee retraite am maanaam fi lay jaaree bàyyi football te Modric nag dañuy wax ne mag la waaye mag mu am ñam la kon immortel la du dee mag la waaye mën na gone yu bari Carlo Ancelotti moo yëkkati kàddu yooyu dénk ko waa Marca yéenekaay ñu jugee ci Luka Modric waaye Carlo Ancelotti moomee duñu ko bàyyeegum ndax waxtaan bi dafa yaatu as yéenekaay ma nga fa woon marka yéenekaay ma nga fa woon lii may waaj a wax nag as yéenekaay moo ko wax ndax Carlo Ancelotti dañu ko laaj ci Cristiano Ronaldo mi nga xam ne jamono jii ma nga ca Madrid li mu leen xamal moo di Cristiano Ronaldo na xolu fans Real de Madrid yi Cristiano Ronaldo du ci mës a jugee laaj nañu ko tamit ci ëllëgu Cristiano Ronaldo maanaam avenir am nee na ëllëgu Cristiano Ronaldo lu ma leen ci wax rek wax lu amul waaye ëllëgëm moom xamuma ci dara Carlo Ancelotti moo yëkkati kàddu yooyu dénk ko waa AS yéenekaay ñu jógee ci Carlo Ancelotti ak i kàddoom jël doomu France bi di Ngolo Kanté moom nag jamono ji benn bëgg-bëgg képp la xam xam ci ëllëgëm fan lay football ginnaaw Chelsea ndax saison bi ñu nekk bu jeexee contrat am day jeex tàkk foofee noppiwul nag ngir xaatim fa contrat li mu bëgg moo di football ca Barcelone moo tax bu ñu sukkandikoo ci sport nee na jamono ji Ngolo Kanté li mu bëgg moo di waa Barcelone xaatimal ko pré accord maanaam jubo ci kàddu teg ko nga xam ne bu saison bi jeexee day buub ay kaakaam dox ndànk dem Espagne jàppale Xavi ca liggéey ba jamono jii loolu la N'Golo Kanté bëgg waa Barcelone nag bëgg nañu ko waaye kay tàggat Barcelone di savi moo nangoogul ndax savi Xavi Zubimendi la bëgg mu jógee ca Real Sociedad ñëw jàppale ko waaye bu dee N'Golo Kanté moom bëgg na Barcelone Xavi képp la ñuy déglu ngir mu ne waaw ñu defal ko pré contrat mu xaatim ko bu saison bi jeexee mu dem foofe jàppale leen xibaar boobu esport moo ko xamle. ñu jugee ci Ngolo Kanté ak ci bëgg-bëggam dem ca équipe nationale bu Portugal ginnaaw bi ñu dàqee Fernando Santos mi leen doon tàggat. xel yëpp demoon ci José Mourinho Mourinho nag jamono jii nee na munul boole AS Roma ak Portugal jamono jii nag fédération bu Portugal ak ña ñu àndal ca liggéey ba kenn képp la ñuy bàyyi xel muy Rui Jorge mi nga xam ne